Serigne Mboup le bourgeois jàngeen jëf mbokk ñi teewlu ci euh, tournée nationale bu président Serigne Mboup di diisoo ak say nawle ba léegi ñu ci région bu Dakar président Serigne Mboup demoon na ci marché au poisson bu Pikine bi mu ñëwee na ki nga xam ne moom moo di commandant corps urbain bi nga xam ne moo nekkee ci Pikine doon indi gàllankoor ci waxtaan wi nga xam ne moom la fa doon amal ci biir waaye teewul président Serigne Mboup euh, yeggale na message bi nga xam ne moom moo jëm ci euh, jaaykatu jën yi ci jafe yi nga xam ne moom moo am ci jën yi ba jamono bi mu raar lool ci Sénégal ñu ànd teewlu kàddoom nag mooy nit mooy soppi boppam yàlla def na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tant que soppi ko woo yàlla du soppi dara soppi nag mooy ñu xam ne ñun suñu réew la buñ ne woon tey ku nekk Amérique ñu ne la réew maa ngay tàkk dangay dugg avion ñëw fi mu tàkk ci sa kaw doo fi bàyyi sa ngeboot képp ko fi jógee daw rek danga dem wuti dara pour ñëwaat kon nag mënuñu bàyyi ñeneen ñëw di yàq suñu réew am nañ fi place nag waaye mënuñ ko yàq li may gis jën yi ñu naan Maroc lañ koy jëlee lu ma metti la Maroc ñun ñoo leen daan jaay jën toog ba sénégalais di jën di jën Maroc wala di dem Mauritanie di napp ñu di la fetal ak yëpp dañu am 700 kilomètres de côte ëpp ëpp géej Maroc ëpp géej murtani loolu daf may delloo ci lu la yàlla wër sa gëleel yaa ko war a sàmmar yaa ko war a def keneen mënu la ko defal loolu nag mën naa jeex élection yi ñu jëm bu ngeen jógee ñu taxaw liggéeykat yi taxaw ëllëg yéen tamit ngeen taxaw ba mairie yeeg poste yëpp ngeen jël ko nga xam ne ni kenn ku ne danaan man lii politique wu ma ci dama ciy liggéey di ci am dara di ci liggéey ngir yàlla léegi mu tegu ci yoon. kon man ñi ñi wax naan dañuy dem ci gaal gi man yeddiwuma leen xam nga ñeen laa yedd. ñi leen waroon a defal loolu ba duñ dem ci gaal bi. waaw te yàlla dimbale nit sunu géej gi ko ko toppatoo. <laughs> bu baax benn mool duutu demati ci gaal gi. wala booy dem ci gaal gi da ngay sarti sa gaal jën dem jaayi ko bitim réew. alal ji ngay dénkaan ne moom fekk mën nañoo leb loo xam ne fekk téeméeri at yaa koy fay sa baat mën nañu wax loo xam ne nii fekk téeméeri at da lay topp kon ñetti yooyu bu ko nit di dénkaane war naa xool ki mu koy dénk ne kii fan la jaar ak fi ma jaar jaar na fa. nit ku laa xam ci moom nit ku lislaame laa xam ci moom. te day defar dëkk bi tamit. day ñëw. Ah. ñu ne dañu bëgg karo nga ne wax li ngeen soxla. Ah. bañ ñu waxee tuuti dañ ne déedéet. Ah. dang ñoo karal ba des na. dëgg la dëgg la kan loolu dañ koy sant yàlla. dëgg la sama bopp laa ko defal xoolal. ma kontaan nañ sama bopp laa ko. mbokk yi président Serigne Mboup bi bàyyeekoo ci marché poisson bu Pikine demoon na ci parc Lambaye bi nga xam ne moo nekkee ci buntu Pikine waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk leeral leen li nga xam ne moo jëm ci programme am ñoom ñëpp nag ñu ànd ci fas yéene koo jàppale ci parrainage yi ak ci élection présidentielle yu 2024 yi nag dama gis ne juróomi ponk rek laa ñëwee benn bi mooy ànd ànd nawle ànd liggéey ndax nit bala ngaa mën a ànd ak moom da ngeen di ànd ànd nawle boo fa jógee ñu fexe ba yokk ba yëg ko jël daara ji tool bi ak pénc mi daara ji mooy xam-xam tool bi mooy bërëmu liggéeykaay yi pénc mi mooy di waxtaane lépp kon ku la wax loolu aussi maanaam def na nga gis maanaam ki nga xamante ne def na nga gis nag foog naa ne bu jàppale jotee aussi war nga mën a am engagement pour jàppale ko. kon ñun nekkuñu koo xamante ne nii dañ laa xamul rek. Hmm. dañoo dañoo xëy rek gis la. dañ laa xam bu baax. Hmm. ba pare sam xam say qualité. Hmm. li la mën a xamal nag mooy Pakab Lambaye bii ñi fi nekk ci gone ak i mag. maanaam biir na ma ne. maanaam sopp na la sopp koo xam ne du politique moo tax ñu sopp la ko. mais nag politique bi lépp luñ ci man dinañ jàppale te borom tax suñu moo laaj loolu. ginnaaw Pàcc Lambaay président Serigne Mboup doxantu na ba ci biir Pikine jaaree fa dugg ci Caaroy ba ci marché Caaroy gaar fenn fu ci nekk mu dox ak tànkam gisanteeg askan wi weccanteeg ñoom xalaat rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi kenn ku ci nekk mu leeral li nga xam ne moo jëm ci programme am mu nekk loo xam ne mboolem askan wi rawatina jaaykat yi rafetlu nañ ko ndax ni nga xam ne noonu la wàccee ba ci ñoom diisoo ak ñoom waaye déglu leen ci li nga xam ne moom moo di seen i ci réew mi loolee nekk lu am solo loo xamante ni nee ñu rafet nañ ci moom joxtu bu baax a baax ñu teelu kàddu yi kenn ci ñoom yàlla na yàlla nangu li ñu bëgg nga mi na ko yàlla doomu réew mi doomu réew mi rek borom daa doomu daara moo mën a réew réew mi dem kanam moom rek la ñu xool lañ nekk doomu daara moo mën a réew mi réew mi jëm ko jox yàlla la ko yàlla jox mbokk yi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di ci tournée nationale bu président Serigne Mboup di leen daje incha ci yeneen i xibaar jërë ngeen